الصلاة وصليا يا إله يا إله وجزيا أبدا واو أن محمدنا مختار في الدين وصليا يا إلهي وجزيا أبدا واو أن مدنا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 ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Seydi Hadji Malick waaw ah, mbokk jëlee di ñu ngi leen nuyu di leen ziara bu baax tabarakallahu bu ko defee ñu daal di ñëwaat suñu téere maam Seydi Hadji malik bii di xilaatu zahab fii siirati xayril arab ah mu mel ni suñu leçon bi passé ñu ngi euh, commencé woon ci buntu fukkeel beeg benn mu melni tay moy sun ñaarel bi la solo ci buntu fukel bi ak ben fi mam sayyidi haji malik don waxe وهم للإطفاء نور القالق نور القالق اجتمعوا لما فشى خبر الإسلام في الإمم جاءوا إلى عمه جيما ليغزله من يبغي بيد أنوق عاقلا يلم فوف لن تخون ودفع دالي سوسات فوف رك تي pexe yi nga xamante si nii ah, noonu islaam yi eh, nekkoon nañ ci te nekk ñoo xam ne tamit mbokk yu sosoon la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko fexeel looloo tax mu mu mu metti woon lool ci yonente bi sallallahu alayhi wa ndax ki nga xam ne daf la xam ci côté yu bëree bëree bari bu lay fexeel rek pour nga échec mën na mën na mën na mën na yomba waaw ni nga pour nga échec mën na yomba lool waaw bu defee dañuy daal di commencé ci fi maam Seydi Hadji Malick di wax naan bi bi xatti mansuura shallat kapfahu shalalan saxiifatan katabu waylan li mujtarimi mu ni waa waa waa ñi bi nga xam ne ñëw nañ ci euh, bàyyi taxu yonente bi sallallahu alayhi wa muy Abu Talib ñëw nañ ci moom ñetti yoon di sàkku pour yonente bi bàyyi yi muy def oote yi muy oote ak di dofloo seen euh, euh, seen xel yi nii yéen da ngeen seen xel yi dafa neexul ak yéen seen yàlla yi nangam nangam yooyu noonu daal ñëw nañ si si si bi ñetti yoon pour mu yonente bi bàyyi loolu noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag te bàyyi loolu noonu léegi nag bi loolu du defee loolu ba ba ba lii ba amuñu ci résultat léegi dañoo bind daal dañoo bind benn euh, këyit léegi bin bindee këyit nag takk ka ci kaw kaaba ga foo xam ni da euh, kenn du ko jot ñu def ko fa pour ni nga xam ni noonu la ñuy continuer di ko euh, xeexe jullit yi waaw buñ leen may soxna buñ nu may soxna buñ jënd si ñoom buñ jënd si ñun maanaam daal népp noo xamante nii daal mën nañ koo xatal di rek ñu def loolu noonu nag léegi nag ki nga xam ne moo bind euh, saxiifa boobu muy këyit këyit googu noonu nag moom la lay wax mu ni bi xatti mansuura nee na ku ñuy wax mansuur mansuur ibnu akrima nee na moo bind moo moo bind euh, saxiifa boobu noonu bin bin takk ci kaw kaaba ga nee na challat euh, kaffuhu chalalan nee na bi xatti mansuura callat kafuhu calalan saxiifatan katabu way leen li mujtarimi wala boog da nga naan katabu yaa ngi dégg saxiifatan katabu binde nan ñoom waa waa màkk saxiifatan benn këyit hmm? bi xatti Mansoora maanaam Mansoor daal moo bindee kayit woowu léegi nag bi mu bindee kayit yi nag callat nee na paralysé na kafuhu tenqam ba callalan ak paralysé maanaam bi mu bindee euh, loolu noonu ñu takk ci kaw kaaba gi moom mi nga xam ne moom moo doon bind loolu loxo bi dafa paralysé maanaam dafa sem ñii loxo bi la ñii loxo bi baaraam yi moom moo sem moo sem maanaam mënatul mënatul dara daal di daal di daal di dee karamb moom Mansour moomu bind lii boobu moo tax mu ni bi xatti Mansoura sallat kaffahu shalalan hmm, saxiifatan katabu kon katabu saxiifatan bi xatti Mansoura sallat kaffahu shalalan mu ni way lan nee na mbugal ñeel na day li muy sari mi ñeel aji bàkkaaru mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo doon def ah, ah, pexe yooyu noonu bay bind ba ba ba loolu noonu lépp xew ci Seydi Hadji Malick wax ni way lan mbugal ñeel na li mustari mi ñeel aji bàkkaar hmm, bu ko defee maam Seydi Hadji Malick wax ni isxaaza sabata awaamin nubuwatahu min al aadaai zawil jurami nee na isxaaza ba nga xamante sabata awaamin juróomi at juróom-ñaari at sabata awaamin juróom-ñaari at nubuwatuhu ak ak ak nubuwaam maanaam nga xamante si ni yàlla yónni na ko ba mu am juróom-ñaari at kaana la nekk nag alxisaaru takk tooga muy muy muy muy li ma waxoon léegi muy takk toogi duñ duñ leen may soxna duñ may soxna duñ jënd si ñoom duñ jënd si ñun luñ leen mën a xañ daal nan leen nan leen nan leen ko xañ daal ku ci am looy looy looy looy lekk gu goo euh, doyewul dara sax nga tóore ko moo lay gënal nga jox ko jullit yi moo tax mu ne ishaada ba nga xamante si nii làq na sabata awaamin juróom-ñaari at nubuwatahu ak nubuwaam kaana la nekk alxisaaru takk toogu nag min al aada sa sa noon ye zawil jur zul jar zul zul juró zul jurami ñii di ay way tooñkat ñi di ay way bàkkaar ñoom ñoom noonu yooyu noonu mi nga xamanteni ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonne nañ ko bam am juróom-ñaari at ci la tak toga amé tukke ca nonam yoy nga xamanteni ni ñoom ñooy way tooñ ñoy way bakkar yi mu ne wax xabaral mustafa min annaha ukilat li ammihi yaalahu min sadiqin karamin nee na wa xabara xibaar na wax almustafa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam min annaha ndaga ndaga ndaga këyit googu noonu day ah ukilat lekkeef na ko ah ukilat lekkeef na ko li ammihi wala boog danga nga naan wa xabara al xabara almustafa li ammihi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na li ammihi ci bàyyi taxam boobu noonu di abou talib min annaha ndaka këyit googu noonu day waa màkk bindoon takk ga sa kaw kaaba bind si seen yi nga xam ni moom la ñuy def ni moom la ñuy fa yéene eh, jàmmaarloo ak ak jullit yi nee na min annaha ndaka këyit googu nag lekkeef na ko mhm. mu ni yaaluhu ñeel na ki kiiman di ko ñeel moom yonente bi sallallahu alayhi wa min saadiqin ci dëggu karamin di di di di way tedd sallallahu alayhi wa sallam lim la fi bëgg a wax mooy Ah, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni waa màkk dafa dafa dafa lii waa màkk dañoo wax defoon seen ñi ñuy def ba pare léegi bind ko ci aw kayit nag def ko benn not takk ci kaw kaaba ga léegi nag ni nii leen fas yéene di jàkk eh, di ja eh, jëflante ak jullit yi bi nga xamante ci nii def nañ loolu nag léegi yàlla daa def am lu dem lekk kayit ga léegi bi mu lekkee kayit gi nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag ah, daal di koy wax ah, ah, abu talib moomu nga xam ne mooy bàyyita xam léegi abou talib nag daal woo waa màkk bi mu woowee waa màkk daldi leen wax ni leen ah yonente bi day sallallahu alayhi wa sallam mii de nga xam ne moom musuma wax dara muy deñ wax na ma ni ma kayit gi nga xam ne moom ngeen bindoon takk ka sa kaw Kaaba ga day lekk na am na loo xamante ni ñëw na ba lekk ka ba bàyyiwu fa lu dul bismika allahumma ñoom gëmoon nañu yàlla mais yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gëmul woon muy des kon bismika allahumma loolu loolu moom la des léegi waa Màkka ñi nag euh, Abu Taalib ni leen bu fekkee Ah, lii mu wax nii noonu la noonu la demee hmm? ngeen bàyyi ko nag xam ne daa nekk ci dëgg bu fekkee nag lii mu wax moom demewul noonu bu ngeen demee gis ngeen këyit ga ñu lekk ko ba wàcce fa loolu noonu bismika allahumma léegi bu boobaa bu ngeen ñëwee man ma jox leen ko ngeen raye ji kon xam ne nekkul ci dëgg biñ demee nag ñoom fekk Ah, këyit ga ñu lekk ka ba mu des bismika allahumma ni leen ni mu leen ko waxe woon noonu la noonu la demee léegi ni yonente bi waxe woon bàyyi taxam bi Abu Talib bi kayit ga lekk nan ko ba mu des bismika allahumma ban àggee xool ko noonu la demee bu ko defee ñi nga xamante nii nag ñoom nangu doon dëgg ñu si bari dañoo daal di tuub dugg si diine ji xam ne nag kii moom si dëgg la nekk waaye nag ñi nga xam ni dañoo dëgër boppa nag continuer daal naan kan ah, bi demee ba gis ka nag xool ko ne ka naan kan daal yow daal yow yow Abu Talib sa sa sa doomu frère bi moo mën a njabar njabar na suñ këyit gi ba ba ba ba ba ban lekk ka ba ba ba lii des ba ba bismika allahumma des kon xam nga ñooñu moom ñu dëgëroon bopp lan lool moo tax mu ne wa xabaral Mustafa li ammihi min annaha ukilat yaaluhu min saadiqin karamin sallallahu alayhi wa sallam مني وقال يا عم إن الله صلط صلط أرضا عليها سوى ما كان للحكم نينا وقال وحنا ينتبي صلى الله عليه وسلم يا عم يوسم بايتخ يوسم باي بندو إن الله عندك يلا صلط نينا خيرتلنا أرضا مخ عليها تكوكيدك siwa ma lu dul li nga xamante si nii moo nekk lil xakami ñeel yàlla muy bismika allahuma maanaam daal yàlla moo yebal ak max ca këyit ga mu max ka lekk ka ba des bismika allahuma kase kase moom la fa bàyyi li waa makk ñu bindoon ci caay-caay ay ay lu bëri yëpp ah, max gi da kaa maxee mu des bismika allahuma sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax mu ne wa qaala yaa ammu inna allaha naka yàlla ah, salata xiirtal na yebal na ardatan ak max alayha ci këyit ga siwaa maa kaana lu dul lu dul la nga xamante ci ni moo ci nekk lil xakami ñeel yàlla muy bismika allahumma mhm. loolu noonu mu ni aamay ni bal qiila jiimun kaana muddatuhu wa qiila baynahuma nahjalhu dastaqimi mhm. mu ni aamay ni ñaari at takkatoo gi ak ak ak këyit ga ah, ak takkatoo gi nee nañ am na ñaari at kon demoon nañ ba julli di sonn lool ndax defuñu ko ci ñaari fan ñetti fan nee nañ dem na ba am na ñaari at am na ñu wax loolu bal waxeef nan xiila bal xiila waxeef nan jiimun am na ñetti at kaana muddatuhu mhm. maanaam diir bi nga xamante si nii euh, takkatoo gi am na ko am na ñu ni am na ñaari at ñii ñetti at yaa ngi dégg muy diir bi nga xamante si nii moom la takkatoo gi ak xisaar gi euh, euh, diire waxii la waxeef nan baynahuma maanaam seen diggante maanaam waxunu benn at waxunu ñaari at waaw kon mën ñii ne néew at at ñii ni at ñii ni at ak genn walla ñii ni ñaari at ak genn walla ñii ni ñaari at ñii ñetti at moo tax mu ne waqiila baynahuma mu ne istaqimi nag nee na na nga jub ndax jël huda yoonu jub walla istaqimi nanga roy euh, jaar ci eh, nax jël huda loolu la bëgg a wax ni aamayni bal qiila jiimun kaana muddatuhu wa qiila baynahuma nahjal huda istaqimi istaqimi nee na na nga na nga na nga na nga màng jub jub jublu nahjal huda yoonu njub mhm. istaqimi nahjal huda kon bu ko defee mbokk yi dañuy daal di taxawoon yi foofu rek di wax ni lépp loo xamante si ni jub na si ñu xam ni mbaax borom la lu ci dëng ñu xam ni matadik doomu aadama la in uridu ila al islah mastataxtu wa ma tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh وصليا يا إله يا إله وجزيا أبدا واو أن محمدنا مختار في الجنة وصليا يا إله لي وجزيا أبدا واو محمد محمدنا المختار في القدم